tiré ak ay pëno yu ñu taal ak ay xeer yi ngay seen fépp foo sànni say gët lii la ñu nemmeeku ci ñaari voie yàlla yi ginnaaw bi ñu jógee ci manifestation vendredi yi jaaykat yi nekk ci njàkkare jàkkaarloog seeni marchandises yi nga xamante ne dafa daal di nekkaat ab doomu taal. miti na mitiwaay boo xam ne ah, yéeme na trop ndax fi nga war a liggéeyee nga xëy. war faa dem pour daan sa doole dem mënoo liggéey deuxièmement bi ñu jël say bagage taal ko nii métti woon na sama xol trop mais mënuma ci dara. samedi fii nga daan law jaay say bagage boo paree dem ñibbi. am na ñoo xam ne bagage junior sax moomuñu ko dañuy dem Colobane ñu ràng leen ay bal man cinq saako la am. ñu daal di see ñàkk ay matériel yu bëri jaaykat yi daal di sax xam ne ni que loolu toll na si ay millions. fii moom liñ fi yàqule bari na ndax lii boo gisee lii nga xam ne li fi yàqu bari na ndax lii ay millions la. waaw valeur bi moom bëri na parce que man mii di wax yow ñaari saako laa yoroon ay balu bal benn saako bi yoroon na war def ay quatre balu pil beneen bi ay euh, ba sport yi nii ak yooyu presque bu ma koy xayma tey romb na ay 600000 sama beneen xarit bi ci sama kanam kooku sax moom ma gën a ndax kooku tamit lim ñàkk ci valeur romb na ay 900000 presque ay tubéy cargoog yooyu yu mu daggoon waaw. ñu jàpp ni que force de l'ordre yi ñoo waxal bi les désordres. policiers yi ñoo sànni lacrymogène ñoom ñoo waral tàq tàq bi buñ sànnilu woon rek rumagène lii yëpp tey du am policiers yi ñoo def lépp problème bépp ñoom ñoo ko fi indi bile situation nekk lu laal bu baax seen business mu daal di sax tere marché bi ñu daan amal si les voies ñu dippee woon ko marché samedi